République, le gardien de la Constitution, son excellence monsieur Macky Sall ah ki nga xamante ci kayam ci la ñu amee Coupe d'Afrique ci kayam ci la ñu amee terre ah am nañu sama kii yi sëñ la ma ñu bëgg a tànn waaw. aywaay defe naa ne ndaxte lii mu nekk tey jëkkiwu ko fii fii la ubbi fi restaurant fi dellu si waat ubbi ay magasin fi dellu si waat jàppale jigéen ñi jàppale góor ñi defe naa ne bu fi amoon xaw kon defe naa toog fii ci dëkk bi ci gox bii di am lu fi woote waaye yoona ma baax waxa ma baax jëfa ma baax defa ma baax yàlla boole ci ko nga mooy Mbappé le président de l'ASC de Pikine Modou Gueye mi nga xam ne mooy jàng nga xamante ni moo mucc waaye nag ah jot na pour tamit nga yàq ko ndaxte ku ñëw ci si Pape Mbaye mu jàppale la recevoir la bu fàttee ñëwee nga xam ne jiw ak jiw ñëwul tamit te li ngay seen soxla ak ko xaalis jërëjëf mooy yaay jàng yaa ngi dégg bër bi de. wuyu ma doo ma jàppale. Karim Faye ñu daar léegi ñee. ci suñu biir doo feebaree. di nga dem ci sangam ak sangam ak sangam te doo faj dara. boo amee ordonnance ñaari. juróom-ñeenteel juróom-ñeenteel fàttewu leen Modou Gueye fàttewu leen ba seen i sabar ak seen i jëmbe ñëw pour def animation incha allah waxuma la jëmbe waaye. dama moo tax ñu ko ko

te am réew nag kenn mënu koo defar te bàyyi ko am réew saa yi boo koy defar da koy jaar ci jigéen am déet waa tàccu leen seen bopp ana jigéen bi mani am réew bu ne su koo defar te jaaroo ci jigéen ñi lu fi baax jigéen ñi la lu fi baax jigéen ñi la maama maa ngi lay Thiaroye Kaw merci beaucoup bana dalee di yëngatu dans le développement du tey il faut que jeunesse bi euh, mën a roy ci yow yow école yow daara xam naa la bu baax a baax macha allah bu njëkk on c'est le maire Sheril menena jokonya Hal polari menena jarama fatu également des représentations religieuses. Ils sont aussi les représentants de la jeunesse, les représentants des mouvements de femmes. Monsieur et Madame Guéry, Madame Guéry les ci kanam tuuti rek bu ñu installé ba pare suñu programme ñu daal di jox rek sunu mbokku artiste bi mu dalal ko mu gannaaw mu jege seen fii. loolu kay El Hadj Cheikh Mbacke mi ngi ci ginnaaw ak Chérif mi ngi ci ginnaaw El Hadj Cheikh Mbacke mi ngi ci ginnaaw ak Chérif ak gàncax ñoom. Et bien voilà donc monsieur et madame Gay. Voilà monsieur Gay qui salue le public. Quand je l'enlève, et bien voilà le couple, le magnifique couple de l'année. Et bien voilà, le plus beau couple du siècle. Le couple gagnant. Diable baiser. yàqu te lii kenn daa bëgg yàqu mën na lim yokku jafe kon naa ko bokk may te boobu dara sa sa sa yaram mën na may na la lu rek kon nag ñu ngi ñaan yàlla na yàlla te nuyu sa kilifa yi jël na président ba ci amul nag mooy soxna si ku baax la démb ma nga sama kër bii wax naa man ci bis bi bu ma sañoon dala dégg te man 45 ans maa ngi fi jëm lu ma def fi laa ko def te fu ne mën naa faa suma frère suma xarit. xaadim wax na ko. ku xool lii daje fii tey. xam ne ki ko waral jàmbaar la ki ko waral jigéen ju mën góor la ki ko waral jàmbaaru fàq tëdd la ki jóg mais jigéen ñi dama bëgg kenn dootul taxawaalu kenn dootul sonn dama bëgg jigéen ñëpp liggéey jigéen ñëpp jàpp ci dara zéro stress zéro chômage pour les femmes kan moo ko def Madame Gueye tàccu leen ma ko ba ay nu ma ndirir sans plus tarder comme ni ko Khadim waxee am na ay surprise yu fi war a am tey tey ay Adja dina fi génn ñii dem fees dina fi génn tirage yu bëri dina fi am biir matak ak lépp loo xalaatee a ne dañuy remercier nag groupement de femmes yi nga xam ne ñëw nañ fi ñoo ngi remercier Dieynaba Diouf. ñoo ngi remercier Dieye délégation ñoo ngi remercier Khady délégation ñoo ngi nuyu suñu yaay Fatou Diop ca ñoo ngi nuyu suñu yaay Roqay Diouf ca Bargny ñoo ngi ñu Anta Mbaye dëkk fii ci Mousdalifa waa ji da caare kaw ñoo ngi nuyu suñu yaay Maymuna Kande ak réseau de femmes bi ñu àndal yëpp na waa Medinatu Munawara waa CFA Touba Pikine ñu fi yëpp teew nañu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bëgg a jublu ci programme bi parce que guddi na ñii nit ñi fi ñuy ñibbi sori ñoo ngi di sant sant di leen gërëm di wax ngeen tàccuwaat seen bopp baax merci Pape. soxna xam li ma defal yombul ndax jeune boo xamante ni amul liggéey nga dimbali ko woo ko jox ba muy liggéey di verser loolu yombul kon vive yaay ja ca kaw ca kanam may profité itamit di nuyu sama regroupement benn baraag muy. Moustapha Diagne nga xamante ne moom mooy suñu jëriñu wakkaana akal vive Yaye Agro vive Yaye Agro vive Maram Faye jërë ngeen jëf boyam foy do mel fuuta fo jaɓi mbiye Mamadou Gueye jarama kono noon Fatou Faye jarama kono noon Macky Sall jarama Macky Coumba Dioumbu ha yo Fatou Faye sama waaji ah, Fatou Ndanane merci beaucoup yóbbuñu tey ci cent francs defuñu woon dara dañ daan di toog Fatou Faye ñëw dooleel ñuy gërëm suñu président Mamadou Gueye mi ñu jàppale Maram Gueye indi ñu yaay ja agro kon jaaraama bi ataaya amatuñu jot amatuñu jot ataaya kum ci jox congélateur boo aña ba pare yaa ngi takk crème wala yaa ngi takk glace di jaay di dimbali jaboot gi ci gi di jaay di fay jàng xale yi dama ceeb dowliñ omo saabu jigéen ñaa ko teg seeni cantine bitig ngay ubbi da ngay jël charge ba mu fees lépp yaay jël agro dërëm doo ko joxe ngay liggéey di def ndànk ndànk sa boutique fees amul fenn fii rek la yaay jël agro dama ne jigéen ñi tàcc leen seen bopp fii amul fenn fii yaay jël agro kontaan nañ. Eh, asalaamaaleykum. di nuyuwaat di ziar di sant nag sëñ Fallou sama wasila di nuyu ñëpp di nuyu kilifa yi fi toog ak ñu fi jaar seen seet comme ni di nuyu madame Mbacke Diakhaté Sa Ndiaye di ko jox yéeguwaay yi kawe. di sant nag madame Guèye di sant monsieur Guèye ah yaa ji agro fii ñu fi toog ñëpp ñam nañ ko mu nekk jigéen joo xamante ni dafa ñëw xeex mbooloo. xeex ñàkk xeex sonn ñun ñu gis ko ba bëggal ko suñu bopp ñu réseau visionnaire taxaw njaboot si xale yaa taxaw neen seen ay jigéen ju mën góor waaye jigéen ju xool jëkkëram ni mu sonnee ci terrain bi muy daj ci terrain mu daal di jóg laxasaayu ne damay ñëw dooleel sama borom kër yokk ci xam mi karaw kon jigéen jooju dafa jara roy moom ni ni soxna jaaram kon dañ koy wooyee Yaay Fall Yaay Fall Modou Gueye ñu ñëw nag sant ñëpp tey defe naa ne dañoo laajoon fay kaar waaye nekk na 32 parce que yaa Jafa Diop bari ñu indi na 10 waaye sa tax a njaboot indi 22 kon sant yàlla suñu yëf la ñun ñoo ko moom duñ ko ko coog kenn. fak fay jigéen ñi ñu ngi sa ginnaaw soo dawul dañu daw sës nañ ne rek ci miir bi loo ne ñu meññ ñii kenn tëddu leen kenn luyewu leen. fayu te dëkk bi ku nekk gis na fi xew da ngay jënd wala nga luye wala nga fay waaye ñii ñoo la bëgg ñoo la sant ñoo la sant seen jéego masala masala jërëjëf. fi toog ñu mbooloo mi fi daje maa ngi nuyu sama waa mbooloo yi ma àndal amoo tefes femme takku liggéey maa ngi leen di nuyu di nuyu Dieynaba Diouf sama yaay ñun nag ñu ngi nii. madame Gueye jàppale ñu dooleel ñu tey ba ñu teew fii mën a gis suñu bopp ci liggéey bi nga xamante ne nii moom la yore di def social man damay ñaw ma ñëw fa jël frigo di jaay kerem mu jural ñëpp lépp fii jigéen ju fi teew tey kontaan na ci agro sant nañ leen gërëm nañ leen xaadim maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm nuyu naa ñi fi daje ñëpp. Let's go. xamal yàlla moom mi nga xamante ne moo tax ma tarbiya maa ngi koy jox wàccuwaayam ba mu mat sëkk di nuyu bépp sëriñ murit bu fi teew su ma limee damay juum

di leen sant bu amul àpp yéen a bëgg Yaye Dia Agro yéen a ko jox lépp maa ngi leen di jaajëfal. di nuyu bépp kilifa bu fi toog bépp responsable politique su ma limee damay juum di jël seen nuyu ñoom ñëpp di ko dëxëñ di ko jox kenn muy sama borom kër. Mbaye Kaw président AS Pikine ki ma dooleel ki tax Yaaja Agro egg fii ngi jël nuyu di kontaan kon monsieur maire jël naa nuyoo mbooleem ku fi toog di responsable politique di kilifa jël naa nuyoo bi teg sa loxo nga yeggaleel ma ma leen di jox seen wàccuwaay bu gën a kawe di leen wax asalaamaaleykum maa ngi nuyu imam yi fi daje délégué de quartier yi. jox naa leen seen wàccuwaay yéen ñëpp saaju Pikine yi yéen ñëpp maa leen jox seen wàccuwaay di sant yàlla bu baax di sant sama waajur wu jigéen bi ñu tuddee Yaaja Agro yàlla na am àjjanay firdaws ndax moo ma yar ci yaatal moo ma yar ci joxe moo ma yar ci bokk ba tey jii ma am initiative bi maa ngi sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla yal na am àjjanay fi daws ak bépp waajur bu fa nekk. mooy Adja Mbathio Diaw Mbathio di wax ne soxna yi damay jéggaloo ndax depuis trois treize heures yéen a ngi fii yàgg fii am nañu añul am nañu amul place. am na ñu ñibbee waaye ñu ñi dem ak ñi fi toog xam leen na ñoo bokk lépp ndax yaay ja ak loolu sama yëf seen yëf la dama cee nekk feeñuwaay rek duma ci lenn yàlla moo def xalaat bi sama xel jox ma lu ma ko defee ma di ko def koon seen yëfa yàlla bu ma ci gis sama bopp ma di leen xamal ne lépp yéen la ndax ay jàmbaar ngeen ay jullit ngeen ay xaritu yàlla ngeen ndax ay responsable xam naa li ngeen di doxee da ngeen di génn gis jëriñu daw woote indi te loolu mbaax la te mbaax xaritu yàlla la alalu yàlla ku ko jox mooy xaritam tey daanaka dama ne woon du jël kàddu ndax mënuma sax wax dama jaxasoo ndax dama kontaan dama am mbetteel ndax xalaatuma woon ne lii lépp dinaa ko fi fekk bég naa loolu waaye nag ma leen di xamal ne lépp li nga xame ne programmé nañ ko mi ngi fii na ngeen toog xaar ko ba mu jeex ñi fi nekkul ñi dem ku ci nekk sa tur a ngi fii lii sa waxeef di ko am may dellusi si di wax yàlla dafa dogal ne bisu parrainage yi musuma politique xaw ma luy parrainage bi ma sama borom kër waxee dafa soxla parrainage dama ñëw ne tumaane lan mooy parrainage mu ne parrainage lii yéeg lii ak lii la ma ne ko kon nañu woo faamu yaay ja agro ñu woo leen ngeen di daw di jël si fiche yi di ko remplir di ko yóbbu di ko indi te fayuma leen neexaluma leen sexaluma leen suukar jaajëf borom kër di monsieur le maire de Djiddah Thiaroye Kao di directeur des domaines di ku baax ki di ku jara liggéeyal di ki nga xamante ne mooy jàmbaaru Macky sàll bi jàmbaaru Amadou Ba bi jox fit ba ma yegg si fii yépp ñu jox ko premier lot parrainage muy vingt cinq mille parrainage mu kontaan ba may ñu billet Makka ak billet Fès dinañ ko tirage tay jii incha ñu wëlbati ko waat jox ko deuxième parrainage muy vingt mu kontaan ba financé ñu 100 millions sans intérêt kon xanaa kii mooy gor Medina soxna yi fay ñëw sonn nañ gis ngeen li fa nekk ñu ne kon 100 yooyu dañ cee fas yéene créer ay points yaay ja agro ci responsable femmes yi lii yi bëri xamuñu lan la kon jàpp naa ne li ñuy lekk war nañ koy defaral suñu bopp te buñ ko bëggee dinañ ko mën su ma paree ma wëlbatiku wax ak monsieur le maire caméraman yi di ngeen ma jéggal ndax dinaa leen wan ginnaaw tuuti monsieur le maire directeur des domaines directeur des domaines yi maire de Djidah Thiaroye Kaw jàmbaaru Macky Sall bi soxna yi nee nañ dañoo bëgg dakkuwaay te dañ la koy dagaane nga ñaanal ko le président de la république ñoom dañoo bëgg di leen di joxee ceeb ak ñu di ko fayee bëccëg ñu leen koy jox ay climatiseur congélateur ñu koy fay bëccëg noonu lañ bëggee am ay terrain di ko fay bëccëg Salam Vision.